and you will be charged 15 dalasi only. For you to get the notifications for a particular day, just send your SMS to 707 and it will cost you only $1. This is the Q Ramadan service and I hope all of you make use of it and enjoy it. Now the other that we have for you is the prayer service. Of course Ramadan is a pillar of Islam, prayer is a pillar of Islam and you can use the prayer service to remind you of the five daily prayers. Whenever it is time, whenever it's five minutes before prayer time, you will receive text messages that will tell you that it is almost time for you to pray and give you the exact time um, for prayer. And you can use this service by subscribing or getting notifications upon request. Simply send a blank SMS to 717 and you will be subscribed to the service for the whole month. You can also decide to simply send prayer, type prayer in a message and send it to 707 and you will receive the prayer times for that particular day. But that's not all about these two services. You can also gift them to friends and family. Now for you to gift the Ramadan service to a friend, simply type the person's number and send it to 727. For you to gift the prayer service to a friend or a family member, simply type the number of the person and send it to 717. 7. These are the services that we have for you this Ramadan and we pray that God accepts all our acts of worship and Ramadan Mubarak to all of you. juróom fukk yu ma dese woon yooyu laa jënd crédit juróom fukk ak àngale mën na laa xamal ci crédit nga ba tey fekk ah, jëndu la fat fat fat fat fat fat fat loo jënd si crédit dinañ la si jox hundred percent bonus juróomi dërëm am àngale sax hundred percent bonus fukki fukk ak hundred percent bonus juróom fukk million sax hundred percent ni jaay ko dee li nga joore bu dikkee nga amadi so lum hmm. da iya, yow xewal gu tol ni nga yore ko ci biir kër gi waxuloo ma ko waxuloo ko icca bilay ya bon ba ma dem Eh, icca kay nga jëndale dama laa jënda crédit ma woote xooluma ko sax eh kay kay kay ka dikk ah di ñëw na di man ko ma dikk xoolal ñëw na kay hay hay dikk na di wayu fat fat gaaw na di fat fat yay xewal ci kër ku la am jël ku la ñàkkil wuti la yay xewal ci kër lii ko baax metti dangaa sonn bët du enu waaye xam na lu bokk antal nekk si kër gi enu liggéey kër gi yëpp boole ko togga beeg fóor beeg paase bi si weeru koor lañ nekk mën na ma soona ma nijaay si boppam daf mu war a utal mi naan su ko mënul mu bàyyi kaay ba wax la gis nga li ma lay xawal boo toppee liggéey bi da ngay dee man loo woor suba ba ngoon boole koog liggéey kër gi yëpp xam nga loo baax den ko mu utal lam bi munoo ko nga dem sa kër yaay toog bu toogee suba ba ngoon lekkul naanu dina la lijjanti déggal li ma la wax yow boo ko deful dangay dee dem safara parce que liggéey bi soo ko toppee dangay dee te bu ñëwee nga rasal ko sa gi nag boo ko ko rasal du la utal mi naan waaw koy baax man nag maa way liggéey wax naa la ko waaw nit ki dangay am eh. ko <laughs> waaw jaaxle àdduna rek jaaxle àdduna man de maa ngi doon jaay waaye tey dëkk bi neexul xale yi daal duñ la bàyyi nga xam nga mag mun ta daw xale yi oto bu taxaw ñu ñëw jaay la tadar ma daal suma tadar ma jaagi ni ma ko takkee woon daal daanaka noonu laa koy indee dara jarut yi man daal xam nga lu ma jaaxal waaw waaw feebar ab hinca gi feebar ab hinca wan hinca mii ne dafa feebar te dafa bëgg dem si yaayam faju ji naa ko yóot paas te man sax gàcce lay doon si man hinca su waree dem si yaayam ne fay faju ji te man mu ko xamee war koo faj bi faju ma ko naka laay xoolante suma goro waxuma la loolu sax waaye weeri koor gi mun nañu feebar ci biir weeri koor gi dem fay ñun ñu nekk ak tumaranke xale bu ndaw moo mun a dem di diwu taani fu mu ndoogu ji waaye du mag ñu ne léegi ni ñun awaa ah, nakaaram moo wax ak yow gis nga incam yi ma lay xamal dara jotu ko dara ko jotu déglu déglu mais mais gi nga yow yëf yi nca nag tuuti la si doy yi nca mi rek yaramam bi bem diyee nga xam ne ah léegi ah, waaw léegi gomuloo waaw léegi gomuloo ma jox ko paas mu ñibbi kii dara jotu ko hmm. kii dafa bu nga wutal ko mi daan rek jigéen ñi bu weeru koor wi taxawee liggéey lañ dul def te bu fekkee jigéen ju baax la war a sey ci gi war fee jur lu baax dina fi son bu dul bu dee du son fu yow gis nga xam nga lu ma lay xamal amal fu la ci sa bopp mu ne mu ne lu mu bugg a mbindaan mbindaan la bugg boo ko ko wutalee mu toog mu war a bindu ji mbindaan mu ne dafa wut a bind xaw ma de yaa xam de man daal duma la ci waxaat ñaar yoon dara jot ko daal laa la mun a déedéet moom moo war a bindu di mbindaan loolu des na ci yow ku am ku am mat li yaay fay keneen ma maa ngi waamu la yow ñu war la embauché nga ne ngay embauché keneen maa ngi ak ci biir da nga gëmul li ma la wax moo tax kasara jërëjëf yi maa ngi dikk xam naa nu may def

yalla si bopam ma ko wax de muné ne bu sa jëkër gërëmé lu déppo ci ngir islam yow sa natakona, taxaw na té lolu jigen rek la ko yàlla may dégg nga sëriñ soo baax mooy dégg fi yépp nit ñi di leen lembé réew mi di leen lembé seen wajuru jigen jigéen yi fañ nangoon sonal seen wajuru goor yi bañ na ko sax jigen buy sey fañ lay wax né bo démé bul sentu sa jëkkër def la si donkaasi gi xam nga koy sentu mu génne la si ciono gi sa dom te lolu yow ya koy liggéey dara gën ta neex nga nekk di ek di wacc def lu nekk togal sa jëkkër be weeri ndogu jot mu dog lek bi pare nan giix sante yalla sante la wallahi yalla dina la bindal tiyabu bo xam ne boy lembe la di dem yow sa jana taxaw na Deng, lolu loolu dara gënu ko neex loolu loolu loolu loolu jar na jar na jar na lu nekk jar na liggéey ba dee waaye nag comme kan nga ne da feebar man bugguma laa tiye fii buggoon naa nag nga des ci ma jéem laa fajal suma bopp ndax man nii maa la jëlee seen kër boo feebaree maa la war a faj waaye comme que nga ne sa faj yaay moo la dal moo la doy ne nga ma jox la nga dem sa yaay rek boo demee nga nuyul ma sa bàyyi ko xaaral moom rek mu fóon. adéet yow fa nga feebar bi bugguma gàddu sa àq. te mun naa dem si pension yi sax. bàyyi ma foofu mu garab. kon feebaratu la.